ginnaaw nuyoo bi njàngat mi tey bu ngeen gisee photo yin fi def yëpp di photo yoo xam ni yu balaa la maanaam weex lépp jàmm ko yëkkati ci njàngat moo xam ne mu am solo la jëm le 16 mars bi nga xam ni ku sell ki moom lañ war a woo mu jàkkarloo ki nga xam ne mooy maam Mbaye Niang di ab kalam ndax ñang ak Sonko ay kal yoo xam ni dañuy kafakaree ak lépp lu mën di am mu jëntal ko jàmm ak salaam dong lay doon Mame Mbaye Niang dëgër fi nga xam ni moom la taxaw di laaj ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ay preuve Ousmane Sonko tamit jàpp ni moom mi nga xam ni doomu Sénégalais la wax ji nga xam ni wax na ko am na fu leer foo xam ni teg na ko fa waaye loolu lépp bala moo la mën a leer dañuy dem ba nga xam ni fukki fan ak juróom benn ci weeru mars te loolee buñ ca demee nag daanaka kii di président Macky Sall interview wala intervenir dina ci am ci loolee nga xam ne mooy diggante ñaari doomu sénégalais yi nga xam ni su ko neexee moom moom mi nga xam ne moo yor ci gul guyub état bu Sénégal dox ci tànk jàmm yoo xam ni tànk jàmm yooyee daanaka la muy digle wala boog la ñuy bëgg mu digle ko ca mooy Mame Mbaye mi nga xam ne moom lañ tooñ te tooñul kenn sénégalais bu fekkee tooñ am na mu retiré li nga xam ni moo nekk pelletam moom Mame Mbaye Niang fekkee dana nangu loolu bu ko defee daanaka rek loolee nga xam ne mooy la jaaba jonge li nga xam ne mooy réew mi loole lépp day mujj nag naax saay daal di tegu ci suuf bu ko defee gars yi mën a jëmbat jàmm ak salaam ji nga xam ni Macky mii nga xam ne moo sol mbaxana mu weex ak li nga xam ne mooy grand mbubb bu weex bu boobaa loolee day méngoog li nga xam ni mooy sàkku teefug sunu vidéo bi nga xam ni jàmm rek lañ ci soxla ndax daanaka nit ak nit ñoo jote te nit mën naa delloor ginnaaw ci li nga xam ni moom la mbébétoon te loole bu amee du doonuk ñàkk fayda du doon dara waaye doonuk maanaam sa mbokkum julit ngeen dooni kal ngeen jéggalante ci jàmm ngeen àndaat wuti li nga xam ni mooy Sénégal kenn koo xam ni bëgg na ko te war koo jël loole yàlla dogal ko